asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu jotee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ñëw ci sëriñ Ibrahima Khalil saar mi nga xam ne tey jii mooy jëmmi bàyyi sëriñ Sarr ci kaw suuf ak mboolem ay rakkam yëpp. ñamaat mbég ci nag del siwaat di leen fàttalewaat bis bi nga xamante ne bii ci la ñuy fàttaliku seen wayjur bu baax wa di ko ci ñaanal di bàyyi seriñ saar mu war a am nag juróom-ñetti fan ci kor wi di amee ca mux-mux bis boobu nag moom la sëñ Ibrahima Khalil Sarr fas yéene yëgal ay bokkam ak ay xaritam ak taalibey Serigne Touba yëpp ak mbooleem koo xam ne sa wayjur daje woon na ak bàyyi Serigne saar ci ëttub Serigne Touba boobu loolu moo tax ñu ngi toog ak Serigne Souhaïbou Sarr mi nga xam ne mooy wax ci aw turam nekk ak Cheikh Mbaye Jasaaka mi nga xam ne mooy woo ci mooy woo taalibe yëpp ci turu Cheikh Ibrahima Khalil Sarr ngir ñu waajal bis bu tedd boobu nga xamante ne bii moom la ñuy dëgmal mu war a nekk juróom-ñetti fan ci weeru kori bi kon ñu déglu Serigne Souhaïbou Sarr. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe noo ngi yëkkati sunu kàddu sunu digalul sunu kilifa Serigne Ibrahima Khalil Sarr mi jëwriñu Cheikh Serigne Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka ñuy ñaan ci kat ñuy ñaan ci yàlla ak barkeb sëriñ bi yàlla na yàlla dollee guddal aw fanam te wéral ko tàggaleel ko ay ay naalam ak mébétam ci liggéey bii nga xam ne sémbal na ko sëriñ Touba liggéey boobi nag nga xam ne moom lay jublu muy màggal gii nga xam ne mooy màggalu waajuram gi mu koy defal ca mox-mox muy juróom-ñetti fan ci kori muy bis bu ñu waree bu dellu see ca la ko fas yéenee amal ca Touba mox-mox te fas ko yéene ànd njaboot gi ak bokki taalibe yi ci ndigal ginnaaw bi mu ko amee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ba mu ca demalee boppam ndax yónni wu ca kenn ndax kenn doyu ko ci ko dul boppam sëriñ bi bëgge ko lool mu neex ko lool xamal na ko ne loolee mën nga fa nekkal mën nga fa taxawal kon ndigal la mi ngi noonee yeesaat na peq fi yow fas naa ko yéene ànd ak yow na ma ko baaxoo ànd ak yow ndaw yama fa daan yabali fas naa leen fa yéene yabal kon mi ngi tàmbalee ab ci sëriñ Sidi Sarr mii xalifab kër Cheikh Ibrahima saar gépp di ca teg sëriñ maam seex Ibrahima saar mi nga xam ne mooy jëwrini kër sëriñ Mamadou Fadilou Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr di ca teg sëriñ Abo Sarr mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Bakke Sarr ak njabootu sëñ Bakke Sarr gépp di ca teg sëriñ Basirou Sarr mi nga xam ne mooy jëwrini kër seex Mor Diarra saar ak mboolem njabootu kër Cheikh Mor Diarra saar gépp noonee nag. bàyyiwut mbooleem njaboot gi nga xam ne dañuy njabootuk sëriñ Touba gi ci ahlu Mbàkke ak Mbusoobe ak nunu bokkeek sëriñ bi ak mbooleem mag ñi nga xam ne danoo bokkoon ak seen wayjur ak seen maam pas-pas ci pekk ci pàkkub sëriñ Touba bi bàyyiwu ci kenn bàyyiwu ci fenn bàyyiwu ci ñenn mi ngi woo ñëpp tey tàllal loxo ñëpp ci màggal gi di tànnal nag boppam ñi nga xam ne mooy njaboot gi nga xam ne mooy waa alxuraan mooy waa alxuraan waa alxuraan nag moom dañuy lenn ci bis bi ak duruskati xasida yi ndax Baye Serigne ku bëggoon alxuraan la ku bëggoon xasida la kon mboolem foo xam ne daaraa nga fa te di soppe wala di wëllëre wala wala nga kenn koo xamante ci rakki sëriñ bi nga am nga caag moom ab xame sëriñ baa nga la cay ñaan bu bis baa wala buñ ne suba la wala waxtu woo ko mënee na nga ca wàcc ba ëpp kaamil te jotal ko koo ko mën a jotal ci ci njaboot gi mu jot mu jotal ko ci moom boo ko mënatut nga yéene ko yool ba mu ngi ciy bàyyi xel di ci woo itam sëriñ Abdou Abdou Jann mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh saa ndax danoo bàyyi ci seex bi Sarr mu bàyyi mu ndeyu ci di ci woo itam sëriñ Cheikh Mbay Yaaram. mi nga xamante ne it noonu rek la demee ci kër gi danoo bàyyi ci Cheikh Ibrahima saar mu ndayu ci yéen yéen a moom bis bi rawatina Serigne mbay Mbaye luñ mas a nekk yaa nga caag noonu Serigne bi nee na moom yow dal dañ laa tudd rek waaye buñ la tudd toon it yaa ngi ci biir kër gi kon mi ngi mi ngi mi ngi bàyyi xel ñëpp di wax taalibe nag yéen ñi nga xam ne yéen a war a dikk nanu dikkee ci ab yar nanu dikkee ci ak dal nanu dikkee ci ay teggin nanu dikkee ci ak xam ndax yoon wi ak xam la laaj ak taalibe dal la laaj. ki ñu koy defal itam bis bii dafa doonoon bisum naqar fi nun ndax keroog ba nga xamante ni li xew xew na kenn ndékkiwut kenn añut kenn réerut kon nan bàyyiwaale xel boobu ci bis boobu yi te xam ne ni dot suñu wàllam da cay ñëw te bis boobee yàlla na yàgg ci ak ñaanam moom mii ci loxoom ñu ngi ciy woo taalibe yëpp di mboo di ñaan sëfoor si nga xam ne itam dañuy ñëw noo ngi leen di ñaan ci yoon wi ngeen def ndànk ndax yoon wi defar bi fi ne la yoon wi neex na te yaatu na te kawe na sëriñ bi nee na ndigal li nga xam ne moom la ciy joxe daal muy autorité yi nga xamante ne ñoo yor yoon wi muy gendarme yi ak taalibe ak ak police yi ñu yolam ñu ñu dimbali leen ci yoon yi te wayafal leen ko taalibe yi te xam ne la ñuy sëf ci oto yi di ko indi du lu ñuy delloo lu ñuy indi rek ci kër sëriñ bi la. kon nag ni ngi leen ci ñaan rek bu baax a baax ngeen dimbali leen ci loolu gone yi itam ngeen moytu rëj-rëj ji ak coow li ak yuuxu yi ak fomeeg puukare mi ndax loolu taxut a jóg sëriñ bi taxut sëriñ bi di ko woote noo ngi wàcc foofu sunu kàddu ci eh, ndigalul sëriñ bi mi ngi mi ngi woo ñëpp bàyyiwut kenn wut fenn bàyyiwut ñenn woote yi itam ñii muy woote di leen tudd it ñoom ñëpp ci njaboot gi lañu bokk waaye rek da leen koy terale kilifaam yooyee nga xam ne noo àndoon ak moom tam jiitaloo leen te fakkastalu leen kon mbooleem koo xam ne ci njabootu Cheikh Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba ah, te sëriñ Moustapha Sarr di sa jëwriñ ci liggéey ba mi ngi la cay woo te xam na ne fas na yéene nga ànd ak moom te te teew ko ak mbooleem koo xam ne day njabootu sëriñ Mouhamadou saar te sëriñ Bassirou Sarr mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Modou du ak moom ci liggéey ba na ngeen ànd yéen ñëpp te mbooloo ma te takku te ñëw ak mbooleem koo xamante ne day njabootu kër sëriñ Abdou saar te bàyyi Serigne Sarr ma nga xam ne moo nekk ca bopp ba yoon ñoom ñëpp te taalibe yi na ngeen ànd ñoom ñëpp takku te ñëw bu ngeen ñëpp ñoom bu ngeen ñëwee yéen ñëpp ngeen maatu bootu ci ginnaawam ñu àndaat liggéey ba ba liggéey ba sotti mu ñaanal ñu ñu yeewi ko buñ ña buñ màggalee nag ba ci suba ga ba ñu génne ca baas ba nun ñëpp ca nañ ko baaxoo def dañ ko daan fekk si fii ci biir kër Baye Serigne saar gi mu mu mu mu tatagal nu wuuf nu ñeewant nu ñaanal ñu soññaan ñu ba déwénati ñu ñu maase fa dellusiwaat kon képp koo xam ne ñëw nga li ciy ndigal li itam na nga fanaan te boo fanaanee itam na nga fekk si yeewee ba ndax damay wax ne yeewee bi sax daa ne mooy màggal gi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum bokki jullit bokki taalibe yi saa bokki dong yi nga xam dañoo bokk kër Cheikh Serigne Sarr si ndigalu Serigne Ibrahima Khalil Sarr bis bu rëy woote bi nga xam mooy bis bu rëy suñu bisub xéewal gi suñu bisub teraanga di bisub Seex Sëriñ Saar bi def si juróom-ñetti fan ci kor yi sa mox mox ñoo ngi ciy woon ñëpp nag koo xam ne bokk nañ Seex Sëriñ Saar sa ngay doomi taalibe maa ngi lay woo nañ ko daan àndee suñu bàyyi ànd woon ko bàyyi Sëriñ Saar nañ ko àndee ndax bis ba dëkk ba ak la fa nekk ñun taalibe ñoo ko war a def ñoom suñu sëriñ la waaye ndax ñoom dañoo ami sëriñ ñu ami sëriñ ndax ñoom ñi kenn ku ne am nga koo yaakaar ñun nag bàyyi Sëriñ Saar lañ yaakaar lu ñu am xam ne bokk nga ci taalibe yi muy waa Thiès waa Njaaréem waa waa Ndakaaru waa Njaañ waa Kokki ak fu doon ak waa kër képp koo xam yaakaar nga Cheikh Serigne Sarr wala toppoon Cheikh Serigne Sarr woo nañ la si bis bi teraanga yéen fa daan dafa ñaan ànd def ko di ñaan ci barkeb Cheikh ko def nañ ko daan defee bu dara ndax Baye Serigne Sarr ku bëggoon xewal lan ku joxe teraanga la la woon ku teddoon ko ku amoon la woon ku bëggoon Serigne la woon ko yàlla feel ci wa rahmatulah jërëjëf euh, mbokki jullit yi jërëjëf bokki taalibe yi bis baa ngi noonu di màggalu ku Baye Serigne di amee ca Mokh-Mokh juróom-ñetti fan ci weeru kor wi sëriñ bi xamal ne mi ngi ko yëgal mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yëpp nag la ko tàmbalee ci buntu kër Cheikh Mamadou Moustapha ba ci buntu kër Cheikh Mamadou gi la tàmbalee ci kër Soxna Fatija ba ci kër Soxna ak mbooleem koo xamante ne bi rek sa wayjur daje woon na ak Baye Serigne Sarr ci keppaaruk Serigne Touba gi wala mu daje won ak Cheikh Ibrahima saar Njaañ ci keppaaruk Serigne Touba gi alxuraan nag lañuy ak bernde bu ñu demee nag ba nga xam ne vingt et jot na ci la ñuy amal cérémonie religieuse bi nga xam ne ci la sëriñ bi génn ak kilifay diine yi nga xam ne ànd nañ ak kilifay aada yi ñu toog ca baas ba waxtaane ko suñu noppee nag sëriñ xaadim kan dana fa jàng xasida sëriñ xaadim gay mooy ki nga xam ne mooy fanaane guddi ga ba bët set sëriñ bi maase ñaanal ñëpp kon ñu ngi ciy séntu ñëpp di ñaan képp ku teew moox moox yal na yàlla faj sa aajo te tàbbal la ci biir sori dan abadan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu